Salam salam salam salam salam salam boko sénégalais ñew rek di def vidéo bu gatt woowal leen ma guy gu maggi ken kenn lu rien xaaral ma park sama auto bi ndax ma mëna wax ak niga bi niga may ma ma ñew guy Marius Sagna woowal leen ma ko guy Marius Sagna guy Marius yow lan mo la tax soxor niga yow ñeen fukki ñeen fukki nyin ñun jeeg xeyna da ngay dangay tukku ci nyin motax xamo xamoo Guy ñun ba nu ba léegi xare 300000 la jëndal sunu wajuri yi te ensemble kuy Marius soxor gi nga soxor may wax bo ba ne len ji dafa iñaan ni ga let me tell you something sit down put your little ass and listen to me nigga watch what you saying to your co-workers bàyyi li ngay wax sa ñi ngay liggéeyandoor nun du ñuy ay esclave yow yaay jambu mag bi sa ndiglu ya nga melni dangin sa kanam gu yaatu guy mari sa ñanga ni tik ne ne ne ne ken mënu la buddi yow xam nga ma yow mala fekke ensemble na rek sa ndiglu ya soy waxati sa non sense yi guy sa ñaa genné ma ci intéressé woo ma parce lima mo tax man duma ma jubóog yow ya da nga soxor yow ya, say say say say kool woo yow li ya, li dang ko fekk senegal nun ay teranga la no xam na ngay dogo dug dugg ci lislaam Mohamed ne nga tud nga tud da ngay dogo dug ci l'islam nun lu bax la no xam tabaskir bi jot dani defi teranga di timbali ñu amul xar hei Guy marisanya Muhammad, ah Senegal dal moo neex waaye yéen a tax ko jóg nax guy gu mag gi fan lay doonee Mouhamed di leen nax janagal àddina jullit dina wax moroomu jullitam lan moo tax nu may la xar yaa soxor ni nga waaye ba ma fekk la ci kattanu sunu borom bi ensemble barki rasulaay naa la sa tubéy ji laay su mi def la taatu ne ni nga non salut